salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi déglu leen ma bu baax yéen ñëpp xam ngeen ne Ousmane Sonko ñi ko war a àtte mardi le 23 mai lundi kii nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko war na représenté wu war na présenté wu ci tirbinal bi moom wala ay avocat am xamal ne leen ne que Ousmane Sonko dina ñëw wuy si bu ko deful ah banu juge bi mën na dañ koy daan temps te buñ la àttee te yow nga war a ñëw te ñëwoo ñu àtte la doo mën a tey def appel boo jëloon sans avocat appel dootoo ko mën a def ndax danga waroon a ñëw représenté wu te ñëwoo ñu àtte la ci ginnaaw doo mën a def appel pour mu mën a def appel après day ñëw pour ñu juger ko wala mu ñëw indi boppam comme prisonnier comme prisonnier lay indee boppam. mu ne at daan bin ma jox ñeexuma ñu dama ñëw comme prisonnier après pour ngeen attewaat ma su fekkente ne Ousmane Sonko deful loolu article 316 316 bi ak 313 ñoo yem daanaka benn la fii ak vingt ans bu yóbboo mu bañ a jege Sénégal te lii nga xam ne moom mooy Sénégal tamit mën na def mandat d'arrêt international jox ko Interpol loolu mooy fu mën a fekk Ousmane Sonko bitim réew moo xam fu mën a nekk dañ koy renvoyé waat Sénégal gars yi affaire yi dina metti de affaire yi dina metti de lii kese na fu ko fit jëru ko demal wuy ji demal wuy ji yow kattoo ko bëggoon nga projet projet bi ñëw na demal nga teg ko ci axe lu leer laa leen di wax li may di wax nii lu leer nañ la te kenn du ko dindi